di leen wax ngeen abonné ci chaîne bi di l'oreille du monde TV te bés cloche de notification bi ngir ngeen di mën a jot seeni vidéo à temps réel waaye itam mën ngeen ñu bàyyil seen xalaat ci commentaire bi ndax l'oreille du monde TV yéen la fi nekkal ngir di jaamu seeni soxla. mbokk internet l'oreille du monde TV asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen jaajëfal ci déglu bi ak topp bi ñu ngi fi ci Tiwaawan ci wàccaayu gàmmu Tiwaawan ginnaaw. ñaari at yi nga xamante ni toog nañu ko te gàmmuwuñu li ko waraloon nag mooy mbas mi nga xamante ni moo fi jaaroon di coronavirus waaye ren yi nag ki nga xamante ni mooy xarit général yi di Tijaan dafa daal di joxe waat ndigal ngir ñu daal di mën a waajal gàmmu gi. waaye gàmm gi itam dafa am ci contexte bu spécial parce que ren jii nii mooy centenaire Seydi Hadji Malick maanaam téeméeri at bi nga xamante ne nii suñu maam di Hadji Malick jógee na fi ak léegi yemoo tamit ak 144e édition gàmmu maanaam téeméeri at ak ñeent fukk ak ñeent bi ñu dalee gàmmu ak léegi loolu nag moo tax ñu daal ñëw seet suñu kilifa oustaz Mouhamed Mbaye fas yéene sekk ak moom waxtaan oustaz ñu ngi lay di la ziar te it di la jaajëfal doon la laaj tey ginnaaw ñaari at yi nga xam ne toog nañu gàmbuñu ban yëg-yëg nga am. waa l'oreille du monde TV Baro ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara dafa mel ni nag gannaaw bi ñu nuyoo xalif général Tidiane Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour ñaanal ko suñu borom subhaanahu wa taala yàlla dolli ko wér yàlla dolli ko fee yàggal nuyu ay raqam yëpp macha allah ak njabootu maam Cheikh Seydou Hadji Malick yëpp njaboot gi nag soo ko tuddee mooy doom yi mujj. mooy ñi sant si ak taalibe yi ñoom ñëpp njabootam la ñu bokk ñaan suñu borom subhaanahu wa taala gàmm gi ñu jëgmal yàlla nañ ci àgg ak jàmm buñ ci àggee yàlla na nekk gàmm goo xam ni gàmm gu mës am la te dafa mel ni tàmbali na ndax ñaari at yi yëpp sëriñ bi toog wóotewul gàmmu sant yàlla rek lañ ci jëlee ndax li ko waraloon moo doon ngànt ndax feebar bu fi nekkoon doon wàlle jamono yi ci ginnaaw ku ne yëgoon na ni feebar bi doyoon na waar ba kenn du jóge Thiès dem Dakar kenn du jóge Dakar dem Ndar lu ko waraloon mooy feebar bee ko waraloon tey yàlla dogal na ni médecin yi ak ñi nga xam ni ñooy gouvernement bi waxtaan nañu ba xam ne feebar bi mën nañu dund ak moom comme ni ngay dundee ak socc di ko dunde ak siburu mhm. ci biir réew mi te du gaañ gàllankoor kenn mhm. bi xalifa bi demee it ba yëg ni loolu mën naa am ci la joxewaat ndigal ni nañu woote waat gàmm mu joxe ndigal ñu woote gàmm kon sant nañu yàlla mhm. waaye sant Serigne Babacar Sy Mansour ci bi nga xamante ni li taxoon mu bañ a woote gàmm rek moo doon pour sauver jaami yàlla yi mhm. moo doon pour bañ kenn ko ci loru mhm. wala bañ kenn ku ci feebar moo tax moom mi ko xañoo bañoon a woote it gannaaw gi lu ci waay mën a wax moom dafa am lu mu doon baro mhm. wa qaasaytu min muri layaali wa xulwiha fama garra nafsi sarfuha al mutadaawil bàyyam moo ko waxoon moom Cheikh Alhaaji Mansour moo ni jànkonte naa ak ay guddi yu wex xat man alaaj fi jànkonte nayr ak ay guddi neex muni waye fama garra nafsi sarfu hal mutadaawidu neena guddi wex yi momanté ci bakkanu nit di wex wala ngay neex muni man alaaj sur yu weex yi saalit loowuma yu neexi salit lowuma yeen sa nga gis ko xamné lu neex mo koy salit loo wala lu wex salit loo ko Cheikh Xaaji Mansour ni lu neex salit lowuma lu wex salit lowuma ñu ni ko wa Cheikh Xaaji Mansour lu tax mu ni ndax waqad raada cheikh yi qablu qalbi murabbiyan fa laanat li dawraatil xutuubil mafaasilu mu ni tàggat na ma ñu ne ko ku la tàggat mu ni bàyyi seex si du xaj maag sama wayju kañ la ma tàggat mu ni qablu ca aalamul arwaax la tàggat Cheikh Alhaji Mansour yamul ci tàggat ma mu murabbiyan mu yar ma mhm. defar ma man Cheikh Alhaji Mansour ba faalewu ma tagg faalewu ma xas yooyu nag bàyyam dundoon da ngay yëg ne Cheikh Alhaji Mansour loolu la doon ci bàyyam mhm. muy Serigne Babacar Sy Mansour mhm. doon ci bàyyam guddi xas ak tagg ñaar yooyu yëpp la yemale te bàyyam moo waxoon wa sawi sana annaasi wa zammi min humu wala taxcha gayra allahi alimi gaybihi alaaj Mansour ne woon na nga yemale ki lay tagg ak ki lay xas mu ni te bu ragal ku dul yàlla ndax yàlla rek moo xam li fàddu moom Serigne Babacar Sy Mansour mu toog toogaayu maam Cheikh Sidi Hadj Malick waaye mu wan adduna bi kilifa piir nan la war a mel ndax kilifa buñ la taggee ak buñ la xasee ñaar yooyu feek taalibe yaa ngi mën suñ la taggee nga wax ak ñoom suñ la xasee nga wax ak ñoom bu yàggee foofu lañ lay jaar Serigne Babacar Sy Mansour nag toog tagg gi yëgu ko xas gi yëgu ko mu doon leneen ci baayam it mooy baayam lañ tagge woon taw dal jalaalati sabran qalbukum salima yaa mujibal qawmi suudin wal bayaadini Cheikh Hadj Mansour ña ngi ko tagge muñ muñ googu baayam doon dund tey àdduna bépp yëg nañ Serigne ko Sy Mansour muñ googu doon na ko ci baayam mhm. toog ci li mu war a toog wootewul gàmmu lu ne nit ñi di ko wax mu toog ñaari at wootewul gàmm tey nag bi mu woote waatee gàmm muy ren képp koo xam ni bi mu ñàkkee woote gàmm waxoon nga ci safaan tey rus nga mhm. ruus nga xamata nga rus mm-hmm. fa gàmmu nekkoon démb ak bërki démb bi mu ko wootee waatee ren dafa yokk fa mu nekkoon lu tax mu yokk fa mu nekkoon mooy ki taaloon taal bii muy maam Cheikh Seydil Hadji Malick baroon na leer maam Maodo moo am ndigalu màggal juddu guddi rasulullah ndigal gi ala azimu léylal wilaadati xisbatan isa lam yakun naxwal xaraami oduli ki am ndigalu màggal ko mooy Cheikh Seydi Hadj Malick kenn amul ndigal gi bi mu amee ndigal gi màggal ko mu woote ko woote boobu Serigne Babacar Sy Mansour ñëw feebar tax mu ne nañ ko arrêté ndi ñu arrêté ko ba feebar bi jàll ku ci waxoon safaan tey bi mu ko woote waatee ruus nga ndax ba mu ko woote waatee dara changé wul dara wàññeekuwul fa mu nekkoon fa la nekkaat kon ñu ngi ñaan suñu borom Serigne bi yàlla na yàlla dolli ko wér yàlla na yàlla dolli ko fi yàggal yàlla na yàlla dolli ko sagal nii muy sagale dollee sagu maamam Cheikh Seydi Hadj Mag yàlla ko yàlla dollee sagam ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàmmu gaa ngi noonu nag mbokk yi ñëw na incha allahu taala ren day tombeek centenaire u maam Cheikh Seydi Hadj Mag ci 2022 bi mu woote ci gàmmu maamam mu ngi def cent ci biir suuf ren nag ñëpp gis thème bi mu joxe moom xalifa bi inna allaha yabasu yonente bee ko waxoon ala hasil ummati fii rasi kulli xannin man yu jaddidu ko yonente bi nee na bopp siècle bu ne yàlla dana fa yebal ku beesalaat diine ji Serigne Babacar Sy Mansour ñu yëg ni day beesalaat diine ji lu tax muy beesalaat diina ji mooy Sénégal lépp a ngi dox waaye dafa am lu fi nekk loo xam ne feebar la mhm. mooy waxante lu ñaaw kenn ku ne da ngay yëkkat sa kàddu di wax sa morom lu ñaaw sëriñ bi daal ne comme que waxante lu ñaaw fi nekk te mu gàmm gi ren mooy wa quulu linnaasi xusnan mu jël aay boobu yàlla wax ni dee leen wax jëmale ci nit ñi lu rafet sëriñ bi ni loolooy te mu gàmm gi mu ni na nekk thème bi ñëpp waxtaanee waquulu li naa si xusnan mu ni ku jóge ci gàmm gi boo delloo fa nga dëkk saxal ci waquulu li naa si xusnan booy wax ci nit ñi waxal ci ñoom lu rafet te nga noppi boo mënul wax ci ñoom lu rafet noppil waaye bul wax ci kenn lu ñaaw loolu da nga ciy jànge ni képp ku ko doon wax lu ñaaw moom jéggal na la li ñu ciy jàngee mooy képp ku ko doon wax lu ñaaw jàpp ni dana la tontu lu ñaaw yégal ni sëriñ Babacar Si Mansour du tontu kenn lu ñaaw moom lu rafet la am kumi tontu lu rafet la lay kumi wax lu rafet la lay wax waye kumi tontu lu rafet la lay ton ndax lool la am kon ñu ngi koy ñaanal yalla diko ndokkel ci gamu gi nga xamni mu ngi koy wote im wote nako ko incha taala fi mu tollu tembe tu awon bo fi ñewé da nga nan tay la gàmm ndax ni nit ñi tambalé mel kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yalla na ñëpp ñëw ci jamm kuy ñe delu it nga delu ci jamm ci dara yonent sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi ñu bayiko ci jamm gamu reen gi nak yalla na déssé ma sha allah ay gàmmuy gàmmuy gàmmuy gamu gamu ca kanam mom sëriñ Babacar Sy Mansour ak raqam top ci ginnaam yëpp ak njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Malick looloo doon kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.